papa rapidement sur la sortie de Moustapha ci père ba loo ci tontu. waaw ñoo koy sant di ko gërëm question yi ma posé yëpp bii rek ma si ñor bii rek ma si ñor bii kese maa bon pour ma wax ci problème bu père ba dafa yomb père ko peinture Cameroun peinture ko ay Venezuela feneen waaye du ci réew baaxu lycée en 92 mooy daal ko bëri boo ko xam ne kooku du Mbaye Gueye du Moustapha Gueye ba toogul seen diggante c'était en 92 boobu est-ce que naa nekk mbër daal xam nga père Ndiir bu Faas hmm? père Ndiir bu Faas dana ànd ak Moussa Ñing mi ngi noonu ma père Seck moo nekk ci wet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 te fexe ba ku ko laal ci làmb rek maa tax nga laal te bu doon dafa jëf jëf ju bon wala jëf ju ñaaw du mën ko ko waxal mais jarul créé jarul fabriqué en 1980 1992 la Moustapha Gueye daal Ibou Ndafa terre ba été avec les séeréer maa nga dem mu doon mbërëm suñ daanee séeréer yi waa Fass Moussa ñu ngi ma benn tekk ca Palandir mooy PRR député yi Baye Mbaari bu séeréer daanee père ba ak Pape Thion Thiapa Thion bi Youssou Ndoye ñoo leen di invité kon bu ñu xaar après vingt-huit ans après ñuy tourné wax di ko di ko yàq père ba mi ngi ñëw dix-neuf unité dix-neuf bi fa ñëw a deux mille trois maa ngi càmm dañ mu baax a baax père ba deux mille trois la ñëw ñoom xamante ne depuis quatre-vingt-douze père kaamil bi nañu Papa Sow yàggu am ngeen sànq mu rëy da ngeen di ko bëgg sport bu ngeen góorgóorlu mu jàppale leen yaa ngi may bu baax bu ngeen góorgóorlu mu jàppale leen ñu jël ko adapté ko yóbbu ko biir Fass amul poste nag waaye ku taxaw Fass ne man ña lekk ma si ñàkku peer ba wallaay gore woo ba ci regroupement Gris Bordeaux bii passé Gris Bordeaux Balla Gaye 2 xëy na Gris Bordeaux xaalis egg si wut ci moom mais bi daanee ci ginnaaw nañ ko jox bari na de. lam jox Moussa Gueye bari na de mosul jàppale ba am na fi ngir bëroo combat mu bëre jox na ko trois cent mille liquide entraînement jox bindal ko chèque suuf chèque bàyyi foofu noonu lu amul preuve rek baaxul lu amul preuve rek baaxul man coono li muy bëri bëri bëri yëpp pero ma ma waxee keroog ci sib sawaay pour géwél pero dafa ma beneen deux jours ma wax loolu la pour wax amoon loo wax da nga am combat dama la entraîné bu dee pero mosul faram face père ba Mbaye Gueye toog na sama tudd bu mu tudd Mbaye Gueye toog na moom loo toog Moustapha Gueye toog mu ne ko Mbaye Gueye musuma laa faral man séeréer laa faraloon Moustapha Gueye musuma ne ko Modou Lo laa faral mais da musa daw sa champion waaye Modou Lo tey loo takk ba takk ndax man sama doom yi laa Papa sama Ousa Ousa mu ñëw père ba Fass fu mu far faraa far amatuma mbër samay doom laa am te bu nee père ba mosul faral faas di jugal Mor Ndiaye Mor Ndiaye kilifa la Mor Ndiaye ak père ba yàgg nañ toog Mor Ndiaye xam ne ni père ba c'était bu ñëwee ba tey affaire tool fii ñuy waxee noonu ah da ngay la dara jaral nga yàq deru jàmm maa ngi seet ci jabaram jaraaf ak ay doom ñoom xarit ñoom Kine ñoom Mouhamed ñoom Aziz ma taxawoon nag bu ma taxaw wax de soo xay fax ngay tax de wallaay azim bu ma taxaw wax bu ma taxaw bu ma taxaw wax nañu noppi man noppi naa nañu noppi